naqar ak tiis wàccati na ci axlu làmb muy suñu papa suñu maam suñu xarit di papa booy bàmbara tër doon tëraay bu yàgg tey nag yàlla suñu boroom jël na ko uyu jëna suñu borom dañuy faral di wax naan atum ren tàng na ci axlu làmb waaye dañuy ne rekk yàlla lu mu def rek loolu moo gën di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko ci aljana firdawsiya ak mboolem kum fa fekk ak mboolem kum fa fekk di ko jaale axlu làmb gépp di ko jaale famiyam di ko jaale képp rekk ki nga xamante ne jege na tey ji suñu papa booy bàmbara di leen wax ne bakkan bu ñam dund rekk di nga ñam dee kuli nafsil saay xatil mawti nekkoon nag jàmbaar ca bëre ba nekkoon jàmbaar ca bàkku ba doonoon champion monument sax lañ koy wax waaye nag yàlla tamit bu soxlaa keneen ku soxla dangay ñàkk amaana bu doon lañu ñu gënal tey day wér doxe ay soxlaam waaye it ku matal dem ñu koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko àtte ko ci yërmandem équipe bu Baol TV gi yëpp ñu ngi leen di jaale suñu papa Boy Bambara yàlla na leen yàlla may xolum muñ